juróom-ñaari téeméeri kilomètre digganteem ak Ndakaaru Kédougou suuf su barkeel biir ak biti moom lañ fi nemmeeku waaye askan wa suñ ci seen bopp benn yoon dara warulu ko lu dul société minière yi bàyyee ko bitim réew di exploité wurus fer ak yeneeni ressources ci gox ba ñaari fukki fan ak benn ci weeru juillet bi weesu ab jàmmaarloo lañu nemmeeku fii ci Tomboronkoto diggante takkadeer yi ak askan wa gannaaw société bii di Peterwald Mining Company di PMC jëlee ab dogal ngir am wut or ci biir village bi kilifa yi Tomboronkoto daldi ci lànk nag PMC nag ngi tàmbali exploité wurus ca atum 2018 ca Mako benn village bu Kédougou waaye lañ fa diggalante ak askan wa dafa ña ca lenn rax ci dolli nangu suufu baykat yi ba deseetuñu dara liyee tax waata mboronkoto teel a jël seen matuwaay lànk ne duñ ko amal ci seen i dëkk waaye état daal di yabal ay takk der ngir société bii di BMC mën a amal liggéeyam mu jur coow ba ñu teg ca loxo fukk juróom doomu aadama rax ci dolli def doom buum seeni kër ñenn ñi sax ci kilifa yi ak i jigéen ñi ay duma moo leen fa fekk. Tomboronkoto société minière PMC dafa ñëwoon fii euh, mu def exploration loolu yàgg na ñu amaale benn site boo xamante ne boobu foofu la ñu tudd mel nii Company instant bi fu ñu fa fu ñu wax ak ñoom ñu ngi explorer foofu ñu ngi exploiter foofu euh, exploitation boobu mooy foofu la ñu nekk di génne or bi instant bi nii. mais parce que xam na ni ñoom fu ñu nekk foofu day day jeex xam naa ne or bi day jeex foofu te il faut que ñu utaat feneen pour ñu uti or utaati feneen boobu euh, ci loolu la ñëw euh, ci Tomboronko dañu amaat beneen permis boo xamante ne moo leen may pour ñu uti or ci diwaan foofu rëy na parce que dafa mboolee commune Tomboronkoto commune euh, Bandafassi ak commune Nenefisha loolu yëpp ci permis boobu la nekk mais ci permis yooyu yëpp. Euh, dañoo wóor wóor wóor wóor mais si sama yaakaar gisuñu mais léegi depuis trois ans ñu ngi négocier pour ñu euh, uti or ci biir Tomboronkoto ci village Tomboronkoto ci biir ci wet euh, dëkkuwaay yi population yi loolu la ñu nangul parce que société bi yàgg na fi yàgg na fi léegi ñu jeexal léegi ñu am huit mois ñu ngi à peu près à cinq mois yooyu cinq ans yooyu ay cinq ans yooyu léegi mu des ay huit ans ay trois ans wala quelques années yooyu pour ñu jeexal eh, ñu ne dama jël benn exemple rek boo mayee sa boo mayee sa doom benn koo xamante ne toppatoo ko bu baax bu la ñaanalee te pour keneen doo ko may donc loolu moo tax ñu ne euh, mu ñu leen joxaat beneen endroit te ba pare bu ñu nee décret moo leen euh, arrêté moo leen may permis ñu décret moo sànq suñu village. parce que village képp xam nañu am na décret boo xamante ne moo tax village yi village am am na décret boo xam xamante nga nekk commune te décret boobu moo tax ñu am village léegi bu ñu décret ak ak arrêté ma xam ne su sama yaakaar décret moo am doole par rapport arrêté arrêté ministre moo ko def wala sous wala préfet mais décret moom président moo wax ne fii nii village la doon donc foofu bu ñu ko defee utikaay or loolu métti nañu trop loolu moo tax ñu ne bu ñu defee utikaay or or bu ñu gisee or jour bu ñu gisee or village bi lan lay doon parce que mënuñu def exploitation bi mënuñu uti or ñoom ñu ngi génnee or ñun tam ñu ngi dëkk foofu ci même endroit ci même parcelle loolu mënul nekk loolu moo tax ñu ne ñun nanguñu parce que fii la ñu miin fii la ñu xam fii la ñu am suñu armel yi fii lañ suñu maam yi nekk fondateur fii nii Tamba Saraketa foofu la dëkk ñun mënuñu nangu ci wet foofu surtout wala ngi se armel yi ci wet foofu la ñu nekk di gas loolu moo tax ñu ne ñun nanguñu pour ñu uti or mais au delà de ça fu ñuy gas noonu foofu ñoom tam foofu ñoom suñu euh, foofu lañ uti or pour ñu am fu ñu lu ñu faj suñu soxlay donc ñee na bu ñëwee ñu jël foofu fu ñu jëm ci ginnaaw loolu tamit ñun géographiquement boo xoolee Tomboronkoto boo gisee mu nekk euh, siège parce que centre la centre la moo nekk centre boo demee fii nii am nay dëkk boo demee côté am nay dëkk loolu moo tax ñu nekk centre imagine ñoom bu si Tomboronkoto bu ñu waree déplacé wu parce que bu ñu ne exploitation dinañ déplacé kuy wóor day nga bugg utti da nga bugg utti boo euh, kuy utti da bugg gis boo gisee looy def da ngay exploité te boo exploité est que mun nga exploité nit ñi tamit dëkk fa loolu moo tax population ni loolu munul nekk mënuñu nangu ñu ñëw jël suñu suuf ñu ñëw war or fii nii parce que euh, am na benn euh, proverbe malinké bu ne euh, jël naa jëlu gën jël naa mais gën dugg naa mais jëluma boo fa duggul na donc loolu moo tax ñu nee la bu ñu dugg ñu uti or parce que suba dinañ tax ah gis nañu or lay lu ñuy def loolu beneen wax lay indi loolu moo tax ñu ñu bugg ñu arrêté affaire yi mais nanguñu ñu forcé man dama foog ni suñu biir ay waxtaan la mais ci loolu yëpp man état laay condamné condamné état mooy lii yëpp source bi yëpp parce que d' abord si loi yi ñu tënk si loi tenk tënk Sénégal munoo wax ni surface bii nii euh, mairie moo koy joxe nga ne li nekk si suuf si euh, moom munu munu ci amu ci baat donc population si surface bii la moom te li nekk si suuf si amu ci baat loolu beneen problème la deuxièmement dañoo ne les ressources la euh, code minier le L24 L25 1 L25 1 ne defar ressource population ñoo ko moom L25 1 dafa ne ressource yi population mu ñoo ko moom mais malheureusement so population dafa moom bu ko gisul bu dee keneen moo ko gis moom moo ko moom loolu la ñu gis fii bu dee ñu ñoo ko moom dañoo war a déglu ñu ñu waxtaan ak ñoom mais trois ans ñu ngi wax boo gisee ñun tam ñu ñee ne ñu lànk parce que gisuñu suñu bopp si fu ñu nekkoon foofu d'abord bu ñu nekk bu ñëwee fii mënuñu leen aal nii mënuñu leen joxe nii ñu jël suuf si comme li ñu buggee donc loolu moo tax ñun population bi ne vraiment loolu mënul am mun ñu def recherche mënuñu ñëw uti or fii nii mais malheureusement euh, d' abord le 13 après trois ans de négociation nanguñu juboowuñu ñu uwal woon doole ñu ne leen village bi bon o fait vous ne faites même pas ay ay ay 800 euh, euh, habitants. donc dañu ñëw wane leen seen doole suñu doole ñu uti gendarme yi le euh, ñëw d' abord le 13 la ñu indi société bi ñëw indi ak seen machines yi gendarme topp leen encadré leen ñu ñëw population bi génn opposé wu ñibbi mais le 21 le 21 vendredi dañoo ñëw suba tel man mi wax ak yoon dama doon dem sama tool dama doon dem sama tool sama yoon tol fu ñu nekk foofu la foofu la sama yoon tool nekk ma dem rek ñu ne ma ma taxaw ma ne ko pour lan la mu ne mënuma fi jaar. ma ne pour question mu ne ma de munoo fi jaar ma ne ko non si bu dee Sénégal lañu nekk bu dee loi ngeen wax boo leen bëggee tere fii da nga leen wax annoncé à l'avance wala ngeen benn note wala en tant que agent assermenté nga expliquer lu tax nit ñi mu ñu fi jaar mais tu ne peux pas venir bu leen fi jaar c'est c'est pas une raison parce que même bu dee yéen da leen bëgg ñu def sondage mais il faut comprendre au-delà de sondage am na yeneen activités nit ñi koy def foofu ñoom faut les donner seen cër. ngeen may seen cër ngeen may leen seen euh, euh, seen seen euh, liberté malheureusement loolu moo fa amul dañoo ñëngu nangu liberté képp ku ne ñu opposé wu finalement population bi tamit non seulement dañoo neexuñu leen ñu def sondage bi mais en plus dañoo leen tere pour ñu dem seen tool loolu moo indi jamarloo boobu mu am affrontement mais ñoom ñoo commencé taal parce que ñoom ñoo taal ñoom ñoo indi lacrymogène bu ñu indee lacrymogène mi ngi lakk kër yi population tam génn jël seen xeer ak seen doole ak seen doole ñu am jël seen xeer mu nekk jamarlo bu métti seen diggante. benn vendredi la woon ay 3 heures du matin alkaati yi ñëw fekk ñu fii nii bon xamuñu lan la dañoo jóg rek ay fajar yoo noonu ma julli fajar ma dem xool leen fele ci yoon bii nii fekk ñi ngi bari foofu noonu ma ñëw. mu wax sama jabar ma ne ko jëleel xale yi nga génn leen xale yi xaw ma lan la parce que fii amul sécurité waaw sama jabar bi jël xale yi ne dem léegi maa ngi toog fii nii maa ngi dégg bruit yi boobu gars yi ñu ngi foofu ma dem foofu ñu jàpp benn paa benn paa boobu noonu ñu door ko ba pare xale yi tamit commencé. ñoom ñëw côté bi nii sànni lacrymogène si sama néeg bi nii lakk sama bagage yi lakk sama néeg bi sama xaalis bi dafa lakk wax naa ko duudu deux cent cinquante mille ak sama quarante bon télé yi yëpp mu ngi ci biir bagage yu bari la sax nee nañ nguur gi mooy ñëw pour de yëkkati ñu fii pour yëkkati ñu fii ci Tomboronkoto parce que or bi ñu gis fii moo leen tax a jóg léegi ci noonu ñu ma jël samay njaboot génn néeg bi effacé wu dem ba nele sama jëkkër ne ma demal fële parce que wóorul ñii dañoo ñëw pour xeex paa jóge fee ñëw ci fii pour arranger ñoom ñoom ñu ne arranger wu ñu xeex moo leen tax a jóg tey xeex ak dëkk bi moo leen tax a jóg ñun nag amuñu doole ñu bàyyi leen noonu ma daw dem fële ba ma dawee dem noonu jékki ñu woo ma ñu ne ma penda sa néeg baa ngi lakk mënumaa ñëw parce que damaa yor ay xale yu ndaw ma bàyyi noonu néeg bi tàkk tàkkal boppam tàkk tàkk tàkk ba jeex tàkk amuñu ci dara loo xam ne moom la ñu mën a génnee parce que mënuñoo xeex ak ñoom ñoom dañoo bari indi seeni matériel ñun dañoo mujjee daw génn abal leen fii nii parce que damaa yor ay xale mu metti ma lool nag metti ma trop parce que damaa am une semaine bay jëm si deux semaine ci mbaar bi fii laay fanaan aw ma fu may tëdd mënumaa dem fenn ci nawet lañ nekk yor sama doom yi buy taw man sama doom yi dañuy tawte guddi xam ngeen nawet bi fii nu mel ndox mi daa bari damay day tawte ma téye samay doom nii toog toog toog nii ndox bi di taw ci suñu kaw amuñu néeg fu ñuy fanaan fii la ñu nekk lekk bi sax xaw ñoo def problème parce que suñu dund bi yëpp a li ñu yaakaaroon ceeb yeeg diwlin yeeg li ñu dajale woon foraatu ko ba am ko ne moom la ñuy nawetee loolu yëpp a lakk deseetuñu dara dal la xale yi yëre xale yi seen bagage yëpp lépp a lu ma métti lu métti lu nakkar billaahi amoo foo koy jooytoo gisoo kenn déggoo kenn à part duudu mii nii kenn ñëwul fii di laajte en tout lakk bi daal métti na ma métti na ma aw ma nu may def fu mu ne nii dund bi sax daf ma jaaxal munu ma daw dem xaw ma fu ma jëm fii laa yaakaar fii laa am benn néeg nga am ko ñu ñëw lakkal la ko ak sa waañ bi nga nekkoon sa dundoog sa yëpp metti na ma trop. suñu xaalis yëpp la lakk na suñu dépense yëpp dara nekkoon dara génnul dara dara génnul. lekk amul tëdd amul dara amul ci dëkk bi moo ñuy indil lekk di ñuy indil fu ñu yiire amuñ yiire amuñ dara suñu xale yëpp ñu ngi nii même bu dee dañuy lekk eh, waa dëkk bi moo ñu indil ceeb ak léjum yëpp xaalis bu ñu amee. bu ñu amee yëre ñu indil ñu. man suma njaboot bi mu ngi dem si tool si six heures du matin ñu dem si tool rek fekk si yoon bi taxaw foofu mu ne kon du jaar foofu mu ne kenn du jaar foofu ma daal jàpp fi dem si jullukaay bi mu tasaay ñoom rek man ah waaye. am na ku taxawoon ci eh, ci kaw yoon bi mu ne duñu jàll ma ne ah, ah kooku mu la nekk ma dem jul si jàkka bi si rek su mekk suma garam boobu bi sol suma pantalon ma ñëw rek di leen ma ne ko bàyyi leen yoon kii day dem si suma tool bi man ñetti jabar laa yor ñetti jabar laa yore fukk doom ak juróom ñaar loolu laa amee laa jënga na ma naan ma al jaww al loo liggéey ma ne béykat yi laa béy laay liggéey ñetti jabar yoon si bi lay dund fukk doom ak juróom ñaar yoon si tool lay dunde bay leen yoon yi mu dem nit daal ma jàppee ma di ma door door door man a ah, seen bay ngeen de doore seen bay ngeen doore seen bàyyi ngeen doore dégg nga de keneen wi wax na ko si ñoom leen door bàyyi leen door wax leen door bàyyi ki bi su kaaw bi kooku mer na pour bay door bi dafa mer ci loolu mu daal jël tànkam di ma sàmp saramponne comme ballon ñu si la nii depuis keroog ba léegi ma ne maa ngi fi dem ma fet soo laajee waa dëkk yi yëpp si jàkka bi tout le temps jul bu ne foofu lay nekk maa ne keroog boo léegi maa ngi fii lay jul tiis jaaxle ak ñàkkum wéeruwaay tax na waa Tomboronkoto jël lépp teg ko ci loxo yi suñu boroom waaye di xamal ni nanguñu benn yoon ñu amal exploitation wala exploration ci seen suuf si ndax bu ñu moytuwul daañu fa jëlee te duñu amati fu ñuy bayee. lacrymogène am na ci mais am ñoom ñooy taal brigé jël ji brigé di ko taal ci sama enquête loolu la génn te nit ñi témoigné nañu ko. nee nañu ñoom gis nañu leen ñu ngi taal seen euh, euh, moto yi moto yi sa bopp moto kii brigé lañ ko taal ay néegi tamit brigé lañ ko taal donc loolu yëpp euh, c'est des choses boo xamante ne mënoon nañ ko invité mënoon nañu ko mais malheureusement état bi moo ñu poussé moo ñu poussé jusqu'au bu te dañoo foog ni ñu ngi réglé boobu day réglé dara du réglé dara parce que si jamais ñu gis beneen wax mooy indi parce que dañoo toog ak sous-préfet le vingt quatre 24 vingt 24 dañoo waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom mais sous-préfet dañoo ne ñoom non seulement ils sont garants de la loi mais il sont la pour la protection de la population donc la loi dit que le ministre a signé Sophie Gladima moom moo signé décret bi mu arrêté bi excusez-moi moom moo signé arrêté bi pour may leen permis bi donc ñoom il doit appliquer ici il doit appliquer cela. Maintenant, pour la protection, il doit nous lancer des lacrymogènes, maintenant pour que nous, on puisse quitter là-bas. Et c'est ça la triste réalité. Donc ça veut dire que Tay, euh, ñun nous, on a cédé parce que on n'a plus de force. Parce que jour boobu dañoo gis ni dëkk bi yëpp ñëpp dem ñëw va dem daw parce que pour nooy sax xale yi mënuñu naa nooy lacrymogène bi da nga gis benn xale mu daanu ay mag ay femme enceinte maa ngi leen gis euh, sànq dañoo dem benn kër foofu dafa am benn femme bu nekkoon foofu néegam yëpp lakk dafa dafa dafa ëmban lendemain bi la vendredi bi la am samedi bi mu accouché imaginez tout ça heureusement elle était à terme bu dee nekkul woon à terme opération lay doon mais instant bi fu ñu toll ça ça ñun suñ néegi dëgëruñu néegi yëpp ñu ngi daanu depuis le vingt 24 dañoo leen nee comme vous avez utilisé de la force da nga leen wone doole doole ñu amuñu doole pour jàmmarloo ak ñoom ñu ngi koy bàyyi loxo yàlla. du question nangu nañu amuñu doole parce que dañoo ñëw village bi jeunesse bi yëpp ñëpp daw journée bi yëpp kenn lekkul témoignage yi wane nañu man mi j'ai et des enquêtes je suis parti voir euh, les les les victimes te loolu la ñu wax te loolu moo tax ñu ne leen ñu ngi leen bàyyi ñu ngi bàyyi affaire bi loxo yàlla xam naa ni ñoom am nañu doole mais yàlla moo ñu ëpp doole ñun ñëpp ñu ngi koy bàyyi loxo kooku incha allah bu si yàlla àndee. Eh, ñun ba tey ñu ngi foo xamante ne nanguñu pour ñu def exploitation Tomboronkoto. ñoon respecté na sunu wàll bi ñoo wala mu ne mu ne du forcé du forcé ñëw naa si forcé léegi ñu bàyyi ko bàyyi naa ni ko de waaye bokkuñu ko neexuñu ko waaw bokkuñu ko neexuñu ko bon suñu sago doon du ko def. gannaam ñun mun ah ñu jàpp yàlla rek. ñu samp ab laaj ndax li génn ci kawam fii ci Kédougou askan wa amu ca wàll ndax amuñu sañ-sañ di laaj seen wàll ndax Kédougou war na bokk ci gox yu gën a ndóol ci Afrique rawatina Sénégal ñiy exploité ressource Kédougou ban njëriñ la amal askanu gox ba. ana fan la xaalis bii di jaar.